waaw salaamaaleykum Kébémer TV maa ngi leen di nuyu alors dañu ñëw tey ji wàcc ci Kébémer garage bi dem biir marché sensibiliser nit yi ci mesure yi nga xamante ni moom la war a jël pour aar suñu bopp aar njaboot gi aar askan wi ci coronavirus loolu mooy li nga xamante ni moom la ñuy dox tey donc dañuy commencer fii muy suñu point de départ ànd ak équipe bu xale yi ñu àndal góor ñi ak jigéen ñi distribuer flyers yi nga xamante ni moom la ñu def nii distribuer flyers yi ñu def aar sa bopp aar sa njaboot aar askan wi ci coronavirus boole ko joxe ak ay ay masque donc ku ñu tromb ci mbedd mi dinañ la jox masque dinañ la yee dinañ la également sensibiliser bu baax ci li nga xamante ni mooy coronavirus wax leen ni mesures dañ ko war a topp ndax mbas bi mi ngi fi ñaan yàlla suñu borom mu teggil ñu ko ci jàmm ay ñu dem sama xol dafa sedd sama xol bu sedd dama damay daanu jël de damaa jige tali bi. waaw ñu ngi sant yàlla di julli ci yonent bi di gërëm gëm sa bopp parce que gëm sa bopp dafa nekk lu nga xam ne si moom terminé na affaire bi lépp kon nag ñu leen di ñaanal jàmm rek. di leen jaajëfal bu baax yàlla defal leen jàmm parce que lii ngeen ñu def ci Kébémer ñu lu dugg la parce que ñun ci lii la ñuy dund waaw parce que lii ndimbal la. ndimbal nag joxe dafa metti kon ku yàlla jagle ngay joxe kon yàlla na la yàlla fay ginnaaw yàlla bi ñu santee gëm sa bopp ñoo ngi sant Abdou Guèye sama càmmeñ di di sant nday Dieng di sant ñoom Aminta ñi waaw ñu góor góorlu rek xam ne si moom yoonu yàlla moom boo ci nekkee lu waay def rek jëf jël la daal lu waaye def sa bopp nga ko defal wasalaam Abdou. xawaay ñu xaaran bugaan di leen jox rek pour ñuy joxe ñu ñu ñëw ci marché bi waaye ñoo ñoo dajale seen koppari bopp ñëw seet waa marché bi tey euh, di leen sant nag di leen gërëm waa TMS seen njàqare nag ñu bëggoon koo xam rek li ngeen jaaxle yow mën njaay nga wax ne ñun coonay Kébémer yi ñu sonn ak jaaxle gi ñu jaaxle ci mbas mi bëgg leen cee jàppale ñun ñëpp ñu jël suñuy matuwaay ndax commencement ba gënuñu ko woon ndax koo wax mënu dama takk nag moo tax nag gën sa bopp bugaan yabal leen fi ñoo fi ñëw sax waaye bugaan yabal leen ci kilifteefam pour ñu ñëw TMR jàppale leen ci seen problème laal ngeen seen i jafe-jafe xanaa sant bi rek ngeen gi moo ko waaye moom li defal dina ci réew ko jëmale mu muy ñor li bëgg seer ba dem kon nag bugaan yàlla yàlla dafa ko jàmm ndax mu jàmm la bëgg ku bëgg jàmm na nga ànd li nga maam def ci nga ci sax ndax Kayemel gi lii lañ bëgg ndax kat lii moom dafa doon loo xam ne lii lu lu ñëpp a ngi ñaan rek mu dem te day dem na dem waay na jàll waay na dem waay bugaan nag moom ci kaw rek def nii si biir dëkk bi. non vraiment lii moom baax na baax na ci ci dëkk bi daal. Uh-huh. day dundal dëkk bi wax dëgg yàlla. parce que lii rek protection la quoi. Uh-huh. vraiment kontaan naan trop. incha allah uh-huh. waaw yàlla di déglu waaw jërëjëf jërëjëf jërëjëf vraiment yéen moom ku leen topp mu feebar rek dina dina dina dina arrêté daal. incha allah jërëjëf comme sa bopp rek jërëjëf merci beaucoup. waaw di Bougane Gueye de moom sa kanam rek ndax gis nañ li ñu def ci télé bi man kontaan naa ci trop waaye nag ku santoon Seck nag lay daal ndax <laughs> man damaa sant Gueye seen ñi leen yéen a jigéen gëm seen bopp yi ñoo ci dóor ci waar fii ni gis tey tamit ay jeunes comme yéen nekk benn mouvement tuddee sama bopp gëm seen bopp ñoom it ñooy maye masque di sensible nit ñi si corona bi noonu lañ ko dundee ak ñoom ak noonu lañ ko jàngatee tamit dëgg la dëgg la yaay ba yow nag asalaamaaleykum li nga wax dégg mu ko de waxaat waaw mouvement gëm sa bopp ay jeunes yi nga xam ne nii mouvement gëm sa bopp bu bu gaan gay ñoom ñooy maye masque yi di sant nit ñi si feebar bi ñu gis tamit yéen ngeen nekk ay jigéen yu gëm seen bopp tamit ñëw ci dóor waar ci marché bi ñu ñëw tey di leen testé woo leen ci waxtaan ak yéen di leen sensibiliser ci corona bi waaw waaw te loolu leen taxu jug ci leen may émanciné sensibiliser noo ko gisee loolu noonu jëf ji gone yi def xam naa nag bu xale yi xam ne na moom problème réewam jàppale na réewam ndax moom boo ko topp yoonam la di nga amul baax sa njaboot amul baax ñeen jaaxle si génn si lii ak ah, loolu daal baax na moom si réew moom yàlla ko yàlla jàppale moo xam ne ko yàlla ko yàlla benn waa am yow dama jóg dañu doxal voilà da wàcceel sëñ Seye ñu ngi lay ziar. ñu ngi delloo ziar. noo gisee li may def waa muy màggal sa bopp. ah mais man de je viens juste de prendre le train en marche. li marche hebdomadaire de de Kébémer altine nga xam ne yow du ñëppay am marche ñu ñëw di wër seulement di informer les gens par l'intermédiaire des flyers ba pare di jox nit ay masques donc à ce pratiquement on on fera un Kébémer un masque. bu ko vraiment. moyen la pour xeex ak euh, mbas mi nga xam ne instant bii moom moo nekk jamono. mais di leen jaajëfal ah. vraiment di jaajëfal Bougane Gueye Dany. di leen jaajëfal yéen aussi. Euh, li rafet na. le travail citoyen moom nii la war a def waaw. parce que fu mu toll nii. affaire bi tar na boo xam ne nii na nekk def sa yëf bopp. donc bu nekk jàppee fa nga war a jàpp rek. incha allah nous allons vaincre la maladie. salaamaaleykum. ok jaajëf. salaamaaleykum waa gëm sa bopp de Kébémer maa ngi leen di nuyu ku ci nekk sa tur ak sa sant pratiquement di jël nuyoo bi di ka teg sunu yaay booy mère Anta aussi di wax euh, sunu grand jaag merci beaucoup waaw ah, moom mi jóge fii ba jokkul moom moo nekk gëm sa bopp mooy représentant gëm sa bopp de jokkul aussi ñi ngi nuyu ñëpp di di di di di masaw coono ñëpp. parce que ce yombul wa gëm sa bop de ñom ñoo waral li ñom ñoo mobiliser ont des t shirts jënd masques, masque uniquement pour sensibiliser nit ñi ci ni ñu ni bi mu ngi fi ba léegi ndax foog ñëpp ñun ñëpp ñu pour mën fi aussi maa rappeler aussi que tey jii nii ñu ngi ci Kébémer incha allahu rabbi suba mardi ñi ngi fas yéene dem fële au niveau de Louga aussi ñuy def la même chose joxewaat masque yi foofu aussi gën a sensibiliser population bi pour ñu xam gën a xam ni la maladie est là aussi ñu gën ñu ñu jàppandoo rek xëccandoo dóorandoo gëm sa bopp gëm sa bopp population de Kébémer nous sommes là, nous sommes ñu ngi fii ci marché luuma bu dans le cadre de la sensibilisation ci la Covid 19 Nous sommes ni avec le mouvement Gëm du département de Kébémer avec Mère Ndeye à la tête l'Amazon Aminte avec toute la bande de jeunes filles yi nekk ici, Aïda Baye Fall nga dans le social ñu ñëw ci Kébémer le marché de bi def ay distribution de masques ak des de sensibilisation distribuer ay flyers uniquement pour wax nit la maladie est là fièvre bi mi fi et que tay law nit ñi wara gëna farlu ci masque respecter distanciation sociale nous ñu xamni ni ñu édicté buñ ko ensemble comme niñ ko bindé fi gëm sa askan wi ci avec le mouvement Gumsobop du département de Kébémer combattons le coronavirus pour que la population continue à vivre dans la paix dans la stabilité et que l'économie revienne vive Gumsobop, vive la sensibilisation boutons derrière le coronavirus merci. di di distance. kii lu muy def nii. day waaw ni mu tiseel nii baax na. kii nag. day tiseel. day kii lu mu def nii. dafa takk. voilà léegi liir leen ma lii. aar sa bopp. aar sa njaboot. aar askan wi. aar askan wi. wax leen ma dégg aar sa bopp aar sa njaboot aar askan aar corona bi ci corona bu leen demee bu leen demee seen kër yi ah ngeen wax ko seen yaay seen papa yi seen nijaay yi ñëpp d' accord ah wax leen ni raxas su ba set respecter distanciation takk masque non ah les mesures édictées ñuy def yëpp mooy du aar bopp aar sa bopp non from Kébémer corona ay corona dose chloroquine ak corona sénégalais sénégalais Le est grave feebar bi waruñ ko café ndax buguñ mu nan kaas andil nañu jafé jafé mais restons braves nañ ko xeex sànni ko feulé matal suñuy sas coronavirus covid 19 sars covid 2 axi décembre 2019 def ravage ñi fa épidémie pneumonie daril virus risiologie sociaux et inconnu fait le tour du monde au défi mo ngi sasoo di waanu Chine dans la ville de Wuhan province de Hubei de mars la teew gaal seen feebar bi dëgg di crime faalewul ko dëgg ci crime dal ñëpp mag ak gune, gana gumba wala mu ne amul vaccin bu la si aar xanaa fa tollu di set yorul nga koy listixaar médecin moo ko mën a seet en feebar bi day waale bul ko saale waale ñu mu dañ koo caaxaane jàppal samay dénkaane boo yaram bi tàng na nga njëkk a noppalu wàññi bépp jaxasoo doro woo kër dot yaram bi tàng sa gët bi tar nga am problème mu nooyi wooteel 15 15 mbaa 800 00 50 50 xaar dañu lay jël si mën na la dal si contact avec un cas positif si bu muy wax ak yow wala mu sëqët sa kaw mbaa nga laal moom lu mu laaloo attention au porteur see ñu ko am te mënul feeñ mën nañ ko wàll ku ne te ne si forme saa su ne bu ñu vàtte geste barrière ku la jege da nga arrière un yi nañ ko fonk sa bañee sa bët dëkk solal sa masque aar sa bopp aar ñi wàññi dox sàmm say mbokk sàmm sa waa kër New York bis mën na xaar honora tout le temps ju boo si piis fala far ku yàkkamti dangay lon en ah, coronavirus teere xeex bi buñ ko saxraay boole suñu xel benn say daxa ko mu jóge fii kay fagaru moo gën faaju nañ si dem ala accu suñ saganee rek réccu nañ feexee suñ si génn bàkku bàkku corona ak dose chloroquine corona doyal nañu corona sonn nañu corona yow demal corona maa ngeeg sama gel antiseptique corona waaye mais Paco Gagne waaye man temps yi damay sëqal rek sama yaram bi di tàngal sama bopp bi Gagne affaire bi mu demee nii. waaw yow Gagne xanaa yow xam doo si daan télé wala ngay déglu rajo quoi yow. xam man dama ko tal Gagne. Ah. sama sëqal bee ma sonal. waaw mais da di suivre yooyu am na feebar boo xam ne léegi moo sonal monde bi bàyyi. feebar ban feebar. Coronavirus, February Russie la Wuhan jàngoro racine waan la one mais racisme tout day wër moo ngi Europe Legi, Mongi Africa, Afrique Sénégal vraiment bi virus moo sikk ak doy waar gaaw ci wàlle gaaw ci la laajal siin France Espagne ñaata nit la jot faat moom du laaxu déedéet moom du nit déedéet mais ak néeg day faat est-ce que sax moom du kii kenn du ko sañ a weddi li muy xëy di wekki si ay si ay xeetu nafsu bu dee nattu buur bi laaxu yàlla nañ ko tegil xam naa ni am na doole am na fitte am na sañ-sañ la majeure partie ci monde bi te ne frontière la voie maritime terrestre la voie aérienne dellu terre école bi jàng même seeni tëj tëj seeni activé tëj leen seeni kër tere leen génn tëj coronavirus bi la ñuy xeex coronavirus bi na corona corona coronavirus bi la ñuy xeex coronavirus bi na corona corona coronavirus bi na mbokk déglul ni ngay moytoo coronavirus bi li njëkk ci li ma lay wax moo toogal a kër dal jàmm comme ko génn mënul ñàkk nag daa nga xam bul di nuyoo loxo loxo mukk ci mbaat bul di wax ak nit ko sori ko yow un bul di sëqat wala ti soli te jëloo musuwaar sa poxutaan conc bokk na ci lay aar bul di togga ramparal rassemblement bi lay bañ bul di bokk ak kas ko xamul di naan wala di lekk fuñ la fekk del seet mooy aaruwaay bi gën wóor noonu nga koy moytoo virus bi noonu lay wàlle sëqa ci mbooloo nuyoo sa raxas sa loxo sex sa loxo laal bakkan bët wàll nga sa bopp bul di fàtte génn nga ñëw raxasul ndox saabu eau de javel sel hydroalcoolique ci la bokk coronavirus bi la ñuy xeex coronavirus bi na fi jeex corona ci corona coronavirus coronavirus am nay tegtal ci nit ki mu dal boo dee sonn di bool ak yax yu metti am jafe-jafe nooyi wala di sëqal lu bëri ak bopp buy metti bul di dem kër docteur mais na nga woote ci numéro vert yi ma lay jox gratuit du la dikke dara wooteel ci 800 00 50 50 wala ci 15 mu numéro chamu wala celle d'alerte bi 78 765 97 31 MC Paco la aka docteur Rabi na ñu yàlla musal ci coronavirus yaa